na ne nag bu ma dugalee ci coow bi coow bi du yam man sama yoon nekku ci moom ñaari at a ngi nii waxuñu def nañ lu nekk pour ma dugg ci coow li jéem ma ci dugg parce que intéressé wu ma sama yoon new ci mook Abdoulaye Thiam bi ñuy génn dañ maa mere woon indil créer ma wax wax ay wax yi sew dem yoonam ànd ak Abdoulaye Thiam man xaw ma woon sax ñu ngi nekk ba xaw ma ko woon xaw ma woon sax nekk ñu ngi nekk lii yëpp ma yëg nii internet bi moo tax ma yëg ko damaa sonn nag moo tax ma ma contacté leen parce que dama bëgg mu bàyyi sama tur bi moom moo tooñ Abdoulaye Thiam na xool nu mu ko fayee wala ñu xool nu ñu ko lijjantee ñoom ñaar sama yoon new si mais man nañ ma génne ci seen wax parce que man dama am sama vie dama am sama liggéey dama am sama nit yoo xam ne dama dama nekk ci leneen man ci li mu nekk ñoom li ñu nekk coowu Facebook xeex Facebook xeexu réseau man lii xaw ma ko maa ngi koy soog a def bi ma juddoo ba tey te du lu ma gënal parce que xaw ma ko foogoon naa ne nag mbonam gi dina ko yemale ci ñëpp ba mu des ci man ndax bu fekkoon man damaa bon wala dama nekkoon nag Abdoulaye Thiam du ma ko ko may moom yow nga nekk ak nit ki euh, at ak lu teg nga ba mu dese lu dul sëy ngay doog a xam ne kon dafa nekkoon ak diw moo tax duma ma sëy moom loolu est-ce que make na sense dama leen di laaj rek waaye Aïssa Faty Abdoulaye Thiam defu ko dara moo ne ñëw ne ko damay sëy yeeg yow takk ma di ko topp kañ nga may takk kañ nga may takk yaa ngi dégg di ko topp di lijjanti kan mooy Abdoulaye Thiam xam na léppam boob mi ngi nekk ak Abdoul mi ngi nekk ak mi ngi nekk ak Sadio kon moom amul lu mu wax parewu pour sëy